jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen chaîne bi di Baol TV ñi ngi amaan mbégte ak contentement di jàkkaarloo ak tey yéen ñu nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi di ñaanal ñu faatu yàlla na nga xamante ne ñoo tawat yàlla na yàlla fëgg seen bopp ñi na fa yàlla génne bañ del siwaat suñu biir ñu nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di leen ko defal nag comme ni leen ko daan defalee nee na leen ak Baol TV fépp fu ne fépp fu champion ne dinañ fa dugg jël ko waxtaan ak moom waaye yaakaar naa tey ñu ngi ci dëkk bi nga xamante ni mooy Grand Yoff seet fi kenn ci xale yi koo xam ne macha allah dafa marqué empreinte am ci làmb kookoy kan ñu koy wax Nandi Fall yaakaar naa ku def 18 combats làmb reconnaître na la moom la lañ jël si tey waaye yaakaar naa nag dafa dugg ci combat boo xam ni Sénégal gépp moom la ñuy waxtaanee war a dox ci digganteem ak ki nga xamante ne mooy Papa booy Djiné ñu ñëw tey fas yéenee waxtaan ak moom bu ko defee ñu bàyyi ko mu nuyoo nuyu mbokku Sénégal nuyu mbokk internet yi après ñu dugg ak moom ci waxtaan bi. naan ñu ngi lay nuyu di la siyaar maa ngi lay fay jàmbaar ginnaaw mu sant yàlla julli Seydina Muhammad di gërëm suñu ñaari waajur di gërëm waa Bawol TV bu nga xam ne ñoo ñu seet si di la gërëm yow di gërëm sa karama sa caméraman di gërëm Grand Yoff zone 7B boo xam ne fi nga ma fekk Arafat Grand Yoff FC Cité Millionnaire Daaru yëpp maa ngi leen gërëm bu baax xaar yàlla ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax di gërëm samay dirigeant ñoom mobile samay diri samay kër si boog mobile Agamor maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm sama mbokk mbëri ñëpp maa leen nuyu bu baax di leen ziar quoi. mais Nandi yaakaar naa saison bi ibbi na Nandi Fall am combat mu war a dox ci digganteem ak ki nga xamante ne mooy Papa Boy Djiné mu am combat bi yaakaar naa amagul date waaye fan nga toll ci wàccaay. waaw ñun moom wax dëgg yàlla pare nañu ndax maa ngi koy wax sax Samb il est ñu teel a libéré suñu bopp quoi mu ñu di fi entraîné bay bëgg dee. dañu dañoo bëgg teel a bëre teel suñu fan si seeti leneen du ñu ay adversaire kii daal làmb moo ñu boole man bëgg naa bëriwaat yeneen combat bu dul papa tamit quoi bëgg naa ñu teel ñoo libéré ñu bëri combat bi seeti leneen quoi. mais dama dégg sa biir kàddu nga ne yow ak du ngeen ay adversaire du ngeen ay adversaire ci nan. ah papa man su ko daanee yóbbu ma fenn man maa ko jël nag coowu làmb ndax làmb moom dafay toll nga jël ko ñu wax ma ko ma jël ko bëgg naa teel a libéré rek ma wàccoog moom quoi seeti leneen quoi. teel a libéré wu wàccoog moom naan ni nga waxee dafa mel na nga yaakaar ni papa dafa yomb bëreeg moom dafa yomb. te ma sax di xalaat doo te tëdduma sax di ko xalaat yeewuma ko sax wóor na yàlla li may entraîné xalaatuma papa dama bëgg pour defaraat sama làmb defaraat sama carrière moo loolu laay entraîné wala entraîné moo ngir papa dama jóg pour defaraat sama carrière defaraat sama sama carrière bu baax a baax loolu laa taxaw pour entraîné ko pour ñëwaat ci làmb maintenant ni dafa ni ngay waxee nii da nga xeeb papa mais est-ce que loolu wóor na xeeb papa papa boo jinne boo seetaanee combat bu mujj moog Jacob Baldé gis nga lim fa wane ak état bi mu indi yaakaar naa papa am na changement xeebuma ko man du ma xeeb adversaire façon adversaire bu ñëw du ma ko xeeb man maag papa boo déggee ma ne la maag moom seen tuuma pour bëreeg papa pour nekk entraîner damay entraîner pour sama carrière papa nag laay dajal moom moo si njëkk dal essentiel dama jóg pour defaraat sama bopp defaraat sama carrière papa daf see bok mu war a jàll jàll jàll ma seeti leneen quoi. mais est-ce que fi nga jëlee papa baax na papa jamono ji neexutu la daan de. papa fu ma jëlee moo ñàkk sens. ndax papa moom lu ko yaag lu bëri dana ko nax juru lamb ji ndax moom moom ma wër fu ne woo promoteur bu ne pour mu tëgg ma mu wër ma fu ne combat bi wax nañ ma ko depuis daaw ma bañ daaw avant bi bëri Jacob wax nañ ma ko ma bañ topp na promoteur bu ne li mu yaakaar nag bu jour ba na fexe ba na dëggal boom leer nañu laa koy wax. mais lan nga yaakaar la dafa yaakaar ni Nandi jaaruwaay la moo tax mu sonal la pour jël la. wala lan la yaakaar. loolu la tegoon nag. ndax nit dina benn instant def arrière tuuti xoolaat boppam dama fa toll woon arrière xoolaat sama bopp xoolaat samay staff falaa toll woon defaruwaat moom nag foofu nag dafa lu ko nax foofu la koy naxee tamit quoi pour moom ñun dañoo bàyyeeku affaire yi maanaam bu jour ba dina xam ne carrément lu mburu dajul si ngaam dinaa ko teg waaw. mais naan da nga ñëwaat pour defaraat sa carrière yaakaar naa ñëwaat bi danga nga xale boo xam ni dafa soxla ne tegale ay defet combat bi bu ko jëlee am na lu ci yaakaar maa yaakaaroon ni papa dafa am lu mu yaakaar ba tax mu jël la. papa lu mu munti yaakaar si biir waxam dama koy déglu. Mm-hmm. Euh, gars yi di ko laaj. Mm-hmm. ne ko boo ñu boo yow boo ñàkkee yàgg ndaan yéen yéen a yem ni ngeen jëlee làmb ji. Mm-hmm. yéen ñëpp da ngeen nekk si guddi gubba setagul saa buñ ko laajee moom day wax na su daanoo day desaat si làmb moom xam na ni day daanu incha allah. saa ñu ko laajee danaan bu daanoo day desaat. day desaat si làmb moom da koy da koy wax ci kàddoom déglul boo seeyaanee vidéo mi mooy seeyaan yëpp. man suma daanoo dinaa def lépp naa góorgóorlu lay wax dinaa góorlu si làmb ji waan li ma yàlla may ma jël suma daanoo daanoo damay desaat si làmb ji mu xam na ne day daanu. maanaam moom combat da koo yomb ba tax na bu daanoo am combat bu daanee am combat mais loolu est-ce que nekkul day dox ci sa xel nga jàpp ni kii amul confiance pour daan ma. wallaahi amul confiance pour daan ma. loolu nga foog. wallaahi. li muy def stratégie. ma ne la lu jóge si yàlla. papa mënu maa daan lu si yàlla laa la wax. lu jóge si yàlla rek moo ma jaaxal ma papa buñ seconde fii di bëri dinaa ko daan vingt jël yi loo xam ne ay seconde lay nekk waaw bokkuñu catégorie bokkuñu ma làmb nag moo doy waar rek boo làmb taxawee coow li lay bëri wante ak jafe-jafe àdduna bu la ndogal suñu borom bu ñëwee jaam bu nangoo rek du so du sonn yàlla moo ma tegoon ay jafe-jafe si dama koy nangu dama daan dem di daan doomu jaamur yàlla dogal ma teg la ay defet xam nga mu metti trop ma muñ ma muñ ko rek la xoolaat sama bopp taxawaat ñëwaat Papa nag foofu la profité pour pour jël ma pour moom lu fa nekkoon mi ngi fa ba léegi te xamul ne defaraat nañ suñu bopp bu baax a baax a te incha allah jouru combat bi dina ko gis bu baax. yaakaar naa da nga delluwaat ci say mbokk defaraat sa bopp mais gis nga ci yow changement boo xam ni yaakaar nga bis bu arbitre sifflé sa diggante ak boo Boy Djiné di nga mën a jëflanteeg moom est-ce que Nandi Fall bu arbitre sifflé seen diggante ya ñaar di nga ñeme samp jaaga xeex ak ki nga xam ne mooy Papa ndax Papa Boy Djiné keppaar yi mu nekk jamono ji dañoo nekk ci confiance géejawaay ku ne gis na géejawaay fan yi macha allah yaakaar naa ñoo téye làmb ji papa nekk ci keppaaru la deger alin Seyde ñoom Aruna ñooñu noonu indi papa mm. est du am lu muy def ci nandi foofu maa ko fa jiitu dina ñooñu muy wax noonu maa ko fa jiitu dama fa doon takk ngemb ikiri waala boobu muy wax ba ma fay nekk nekk fa ñu mu ànd ay kët leer na ma leen ba muy jël làmb ji tàgguwu leen mm. billaay wallaay maa gën a ñeme lu xotteeku téeméeri yoon di nuyu kodde nag sama kët coono gu métti la may teg ak Moustapha Baye Fall xam nga Codé Baye Codé laa maa ngi koy gërëm bu baax a baax gis naa li may teg xam nga Baye Fall ñoom seex Omar yi maa ngi leen di gërëm aw ma seen fay xam nga dañoo yëkkati xaalis bu weex tàll fayal ma saal dénkaane ma foofu sama ruu rek lañ dul jël ngir ba ñëwaat ci làmb comme ñooñu waruma leen leen liggéey ay ñoom Baye Tafa xaa ñoom Ibrahima Ndaw ñoom maa ngi leen di gërëm bu baax a baax. seeraanuñ ma quoi. mais ñëwal ci question fi nga jëlee papa. tombé géejawaay nekk ci dynamique bu baax moom lay wax ñooñu ñooyu lu ñu ma defal du Papa pour pour Ndandi Fall ñëwaat ci làmb la Papa man toppatoo ma ay waa géej waaye lu ñu maag Papa ñooy bëre Papa fu ma jëlee amul sens. billaay walaay amul sens daa fekk ma teg sama yaram lu xotteeku. mais nandi dañoo ñëw fekk nandi kanam gi xoosu lan la contact yee métti wala lan la. waaw mobile mobile 1 ak Mor coono yu métti tey jii dañ ne ma dee da ngay contact nii nii ma lay wax nii. Mm-hmm. forcé nañ ma ba sonn. après gars na ne ba may leen ko ba tey amul problème. bu dégg est que gis ñu papa xam ni kii bu parewut non du papa ñoom ni mbir bi du papa. maa papa ñu war a bëri waan papa nekkul ñu moo tax ñu may waajal man pour Ndandi Fall ñëwaat la ñuy entraîner ngir man pour ma jëlaat sama place en du papa. billaay wala entraîner ma ngir papa papa daf si war a bokk mu war a jaar ma defaraat sama carrière man du maag papa. papa man su ma ko daanee yóbbu ma virgule xanaa ñi nga xam ne daan naa leen si ginnaaw si kanam. ñoo ñoo tax papa su ma ko daanee amul fu mu ma yóbbu. mais avant ñu lay jox papa am na yeneen adversaire yu ñu la doon proposé. waaw proposé nañu ay adversaire yu bare yàlla dogoo ñoo ñu dem jëli lu gën a nooy ñu wax ma papa man leen amul problème staff bi d'accord ñu jël ko sama am na ñoo xam ne dañoo bañ combat bi mag papa. dañ koo bañ waaw. mais est-ce que yaakaar yaakaar naa tam papa tëbul tëb jël la am na lu mu yaakaar ba tax mu jël la. papa lépp lu mu mun munti yaakaar lijjantiwuma ko man li ma li may li may defar sama sama carrière laa lijjanti. Hmm. du ma papa. waaw gis nga Badou dégg nga li wax ci diggante mag ki nga xamante ne mooy papa Boy Djiné moom Nandi Fall yaakaar naa nee naa leen def na 18 combats di daje xale boo xam ne moom it dafa soxla di gaynde gu gaañu yaakaar naa bis boobu du yomb san production moo ko tëgg waaye ginnaaw bu ñu ci loolu sa grand Zarko am combat boo xam ne yaakaar naa combat capital la war a dox ci digganteem ak Ada Ada Fass moom nee na mooy Ada Ndakaaru yamatut Fass nee na moom moom Ndakaaru. Ada li ma koy wax laa ko dooli Ndakaaru la. ah. Ada Ndakaaru la doomu Ndakaaru la dama lay wax lenn fépp fooy mënti dem ci Ndakaaru grand mooy base bi mooy digg bi. mais moom nee na mooy aada ma ñëw aada dolli ndakaaru aada paysan nga dégg ko fu ne ndar wala yooyu Zarko doomu ndakaaru la juddoo fi màggee fi doomu Grand Yoff la Grand Yoff mooy baasu ndakaaru bu ñu naxante Grand mooy base. waaw mooy base yu Dakar nag ay mbokkam danañ nañ koy yeddaat xam na ni ku mu jël xamu ko. xamu ki waaw. ni dana jël komba coow topp la coow li topp ko nii Zarko moo ko may. moo may coow waaw yàlla may na ko si barka Zarko Zarko amoon génnoon génne bu rafet am coow Zarko waroon bëreeg ñeneen yàlla dogal moo ko Ada taxaw day ànd si coow li. mais Zarko jël bi mu jël xale bi xale bi nekk ci yoon nekk ci dynamique boo xam ni macha allah lool est-ce que du risque ci moom. non amul benn risque Zarko amul lu muy risque si si Ada Fass Zarko du tëdd sax ba xalaat Ada Fass Zarko bu tëddee ba xalaat Ada ñun mbëri yu nekk ci ginnaaw dañuy jël yar karwaase ko Zarko ak Ada du ay lamb du Thiès. du ay lamb billaay wallaay Ada Fass doole Ndakaaru Zarko doomu Ndakaaru la. nan nga gisee communication bi ñaari mbëri di def seen diggante ñoom ñaari Zarko. Zarko ak Ada Fass communication bi ñuy def seen diggante. noo ko non Zarko ñun danañ ko wax Zarko. Zarko lu muy topp Ada war ko topp si loolu. na ko bàyyee coow li ba jour ba ñu liggéey rek moo ñu war. te gannaaw mbooloo bu bees tax moo judd. billaahi wallaahi wa taala. mais gars yi dañ naan 100 pour cent pour cent waa Grand doomu Grand la. fii amul ay 100 pour cent Grand Yoff ñun la ñu wax doomu dëkk bi. Grand Yoff doomu dëkk bi lay doxee amul 100 pour doomu dëkk bi ñun dëkk bi la ñuy doxee képp doomu dëkk bi rek pare nañu moom pour jàppaleel si lépp Grand Yoff léegi loolu la xewal dëkk bi la ñuy woote woote wuñu ay 100 pour cent ak yooyu. ah naa la xamal lu day nekk ay dolleeg yooyu fii ñu fi nekk doomu dëkk bi képp ku fi ñëw doomu dëkk bi nga. Ah dañuy booy booy booy dem di xaraji dañ lay yëpp nga juddoo fee nga ñaax fee juddoo moo nekkee Grand Yoff dëkk fi rek doomu dëkk bi nga. grand dafa bëgg deretam. léegi lan ngay conseillé Ada Fass ci ni mu jëlee combat bi digganteem ak Zarko. amul lu ma koy conseillé di ko ñaar yàlla na ko yàlla may wér may Zarko wér ba jour ba Zarko daan. ba jour ba Zarko daan. waaw loolee laa ko ñaan. nga yaakaar loolu dina yomb nan. non ñun tëdduñu sax di xalaat xam luñu lu ñu sas ay ndam rek loolu la ñuy liggéey loolu la ñuy yeewaale loolu la ñuy fanaane ndax dafa am sas bu ñu ameel cubateer yi bu baax a baax dañu ko war a defaraat écrit bi xam nga lu mel ni xam nga li bi doon rek bi ñëwaat na yaa ngi dégg na ñëwaat na bu baax a baax di ko ñaanal dafa war gars yi dañ ko war a jël tamit suñu doomu nday la wala nañ ko jël mu bëri Grand booy fi nekk maa ngi ñaan promoteurs yi yëpp ñu jàppaleen ñu bëri quoi doomu doomu Grand Yoff lañ tam ku leen tëgg di nga am mbooloo mooy loolu promoteur yi sa maa lay ñaan benn na maa ñaan ñaari combat sama sama journée pour nga tëggal ma sama booy na bëgg naa ñu bëri Grand Yoff il temps tamit ñu wane suñu bopp bu baax ñëwaat da jëloon nañu paie ay jamono dañ ko bëgg a jëlaat ren te allah dañ koy jël. da koy jël waaw. mais ah jël nga journée boo xam ne da yaakaaruma mu yomb ci yow waaye sa sa garant am journée bi yaakaar mu yombu ci moom. mais nan nga gisee CNG bi ak ni muy doxee ak seen règlement yu bees yi. ah metti na moom ndax wax dëgg neex man règlement bu bees bi dafa metti quoi ndax mbër ñun ñoo moom suñu stade ñun ñoo suñu stade bu ñu moom suñu stade war nañ fa sottee galaaj yu ñu neex làmb sarma làmb mooy nga yol bideel yol xaaw. yoolu ànd yooyu dafa dafa dafa rafet ci làmb ñaareel bi mooy ñaari ponkal yu posé ay cent nangami kilo jàppante ngemb nga may leen ay dix minutes dix minutes soo léewatoo sax mu jeex. cinq yi ñu may xale yi. xale yi nga may leen cinq minutes xale yi nga xam ne dañuy ànd jaay jaay seen ruu nga leen deux fois cinq ak trois minutes loolu loolu loolu booy ndaw yu ndaw yi sax boole ko joxe ñu bëri xam nga man daal xaw ma CNG bi ñun ñun làmb suñu sport national la buñ ko buñ ko jéggaani waruñu ko jéggaani suñu alal la. suñu alal la nañ jox suñu temps bu mat sëkk d'accord naa ñu xool léegi man man lenn moom moom ma jaaxal léegi bu dee avertissement am na si ay sànni gàllaaj léegi loolu lañ koy boole ci temps bi léegi bu ñu ko boolee ci temps bi léegi man su ma neexee ma ñëw jàpp ngemb papa boo jëne papa boo jëne jàpp sama ngemb temps bi jeex ma gañe ko xam nga loolu dafa terre à terre ndax bu dee ponkal bi pees bombardier kom kenn du ko daan bu dee loolu la bombardier moom kenn du ko daan ci làmb su ko neexee mën na bëre cinq minutes deux trente minutes boo xam ne day jàpp ngemb bu bëggul nga daan ko doo ko daan xam nga Bombardier moom bu bëggul nga daan ko bu mamul doo ko daan te kenn du ko ñëw forcé Bombardier ban mbër moo ma ñëw maam rek forcé ko Bombardier Tapha Tine maa la ko wax fii temps bi moom bu dee temps boobu rek la ñuy bëri day niil. day waaw wala wala pole ah, décision arbitre lay jeexee ndax ñaar ñooñu mënuñoo prib dib rek jàppante. ñaakaar naa CNG ñu ngi lay dégg lan mooy sa dernier kàddu looy tàggatoo. waaw di gërëmaat sama waa équipe bu baax baax. si nu mel ni sama kër si maa ngi koy gërëm moor moor maa ngi koy gërëm maa gërëm mobile sama ganaar sama lëpp la xam nga di gërëm suñu dirigeant yëpp maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm Ibrahima Ndaw xam nga la maa ngi koy gërëm bu baax a baax xam nga Baye Tafa maa ngi koy gërëm di gërëm képp ku may jàppale si làmb di gërëm di gërëm waa Liberté 6 maa ngi leen di gërëm bu baax a baax sama jotaay waa Liberté 6 Baye Fall maa ngi koy teg sa loxo xam nga di gërëm waa Saal ba waa Saal ba may entraîné maa ngi koy gërëm waa di gërëm góor fit war na am combat tamit ak naturel ñoom ñaar ñooñu góor fit mi ngi mënul tegle ay ndam taxaw di xaaraat yaram bi dafa war a làbbaliwaat yaram bi warul fendi xam nga di gërëm waa Arafat bu baax a baax di gërëm samay famille maa ngi leen di woo si combat bi ñoom nag laa am képp kuy sama famille sama doom baay maa ngi leen woo si combat bi ñoom laa am xam nga ñu jàppale si combat bi baax a baax xam nga di gërëm képp ku la xam ne daaw de sànni ak naturel combat la xam nga la képp ku la xam ne Gora Sarr maa ngi koy woo ci combat bu baax a baax di wax man man ma ne la sama mbokk waala waale maa ngi leen di gërëm baan tegle téeméer maa ngi leen di gërëm di leen woo ci combat bi sama mbokk yëpp maa ngi leen di Angel Fall maa ngi ko fàtte ba Angel maa ngi lay woo Fama Diop maire Grand maa ngi lay woo baax a baax di nuyu ñëpp di leen kontaan bu baax si yow di gërëm waa Bawol TV Bawol TV sa kaw si kanam si lu baax bëggee bu baax jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen li la leen indiloon tey fii ci Grand Yoff xale yi koo xam ne macha allah lamb reconnaître na ko muy Nandi dégg ngeen waxtaan bi ñuy gërëm ñëpp di gërëm sama caméraman Badou ci liggéey bu am solo bi macha allah di gërëm sama jigéen pël bu rafet di ko siyaar bu baax a baax di nuyu bu baax sama benn grand ndeysaan jaw production di wax gars yi nañ ko bàyyi xel mi ngi ñëw ci lamb ji nañ ko bàyyi xel bu baax a baax mu nekk fële ca Sandaga di nuyu xaritam ndeysaan Baye Balla Diop borom Difoncé borom Rëbës doomu nday Pape Diouf séeri bu ndaw maa ngi koy nuyu di ko siyaar bu baax a baax ba beneen yoon ak beneen sampion incha allah. waxoon naa di laa la wax ak bi nga xam ne combat bi soxal combat bi soxal nañu lool. mais nag ku xool état bi naan yor nii rek wóor na yàlla nga xam ne combat bi soxla nañu Papa Djiné Papa Boy Djiné ñi rek moo boole moom rek ñu war si jaar rek mais incha si kàttanu yàlla lamb ju taxaw incha allah bi sifflé moo fi bàyyi loolu la si sànni rek naan ku ko xam ne ni du morom Papa Boy Djiné moo doy waa crédit mais barki Serigne Touba Mbacke kii di waxuma la Papa Boy Djiné naanu ku du Papa Boy